Voilà, on est à la présentation de la grande finale. Ibou Ndiaye Obali à droite, Ngagne Sène à gauche. Ngagne Sène moo éliminé Ordinateur en demi-finale. Ibou Ndiaye Obali moo éliminé Ngagne Sène en demi-finale. Et voilà les deux leaders qui se retrouvent en finale. Ibou Ndiaye Obali lii mooy deuxième sortie ci terrain gaal gi deux sorties de finale. arbitre sifflé diggante ordinateur Ibou Ibou Ndiaye a astafurlah ma naan ordinateur Ibou Ndiaye Obali. 2022 ak ngaan ak Obali ngañ seen. final ñaari mbër yaa ngi tekk di déglu wante dimanche passé moom Ibou Ndiaye dafa final ak ordinateur daal koy daan mu nekkoon première sortie fii ci terrain gaal gi dimanche bi aussi mu finalo Ngagne Sène Ngagne Sène mi ordinateur moo ko daanoon dimanche passé en demi tey mu jël revanche ci kaw ordinateur daan ko en demi-finale loolooy lamb ku la daan dimanche kar ko dimanche ca topp looloo tax lutte simple neex bu doon lutte avec frappe da ngay daan nit ba pare bañ koo jox revanche koo daan da ngay di jéggi dootoo ko gestu alors que bu nekkee lit sans frappe chaque dimanche revanche yi dañuy tàkkar naase Ibou Ndiaye à droite Ngagne Sène à avertissement pour Ibou Ndiaye avertissement pour Ngagne Sène ku nekk am nga benn mu dese ñaar. arbitre jox na leen yéen ñaar ku nekk benn avertissement. ñaari avertissement leen jox ngeen séddoo ku ne am benn. su ngeen bëree wut mu ñëw fekkaat leen fa yeneen ñaar ngeen séddoo ku ne am ñaar. Lampoleo, Lampoleo. Ibou Ndiaye Ngagne Sène mi xale la boo xam ne daa ñor xomm ci wàllu làmb looy def ci moom na wóor ñu nga ca ba léegi nii bëreegunu jàppante bàyyante arbitre bi du ci seetaan c'est la mi-temps reprise baa ngi noonu après mi-temps une minute arbitre nee na leen bëre leen sifflé na génn ko ni mel ni ku nu jàpp mbaa jàmm la jàpp la jël na ko ngañ seen jël na ko takk na ko hee Ibou Ndiaye boo rëccee dana ma jaaxal ah! Ibou Ndiaye rey na ngañ seen la ilaha illallah la ilaha illallah rey na ngañ seen Ibou Ndiaye rey na ngay seen ba mu dee